famille boo xalaat ni war na koo soxla nekk ci Sénégal. Mm. nga xam ko recensé ko bu nekk gannaaw suba la tabaski bu yegg seen jox la Sénégal. Euh, jërëjëf Bao lii kat du ma sax du ma ne guleet ko def. dëkk bii ah ñëpp xam nañ la ci li ngay def ci baax. soo baa yaa baax yaa gën yaa riis man Bao xam nga lu ma gën a si yow daaw heure nga ma woo jox ma cent cinquante rek nga yok ko def ko 250 ya bax yok na ci 100 mais ku yok la nga wañ te omar yow xol da nga yok rew mi nga ne ma ku yokul da nga wañ te yow da nga yok da nga yok man nak ma len rek mom mom may xaw met ci yow hmm. sey sey sey ki da nga bax ndax daw amna ben way bu ñaan iliman daw amon na jox na xar nga nga fossal man ni ma na ko joxat te te joxon na hmm, xam nga man xam na waaw yow sax soxoro waaw xam na sa jukko yow da nga wara xam ni tu es le griot de de de de de griot. waaw yaay VIP griot yi. waaw griot yi yaay seen Omar Baawam. xam naa loolu xam yow gars yi bu ñu xal bu ñu xalaatee war a soxla yow ndax da ngaa war a da ngaa war a liquide. maa maa ko def de waaw léegi nag bu toppanteeg demee doon toog kenn. yow yaa mag loolu. dama ne yow. waaw yaa tax ma yóbbu avion dem. yaa tax ma ma takk ceinture. loolu bien dégg attention yaa tax ma ma dégg attention sa ñoox mo seen yooyu ñuy ñoox ki mën nañ ñoo ko bàyyi coton touché yooyu ñuy ak coton yi ñuy wax avion bi dem dem ci biir ya tax man ñoo bay dig ma rey toogaar am le wuy ma bala nga dem am na lon tamit jot na nak lo xaar ko tak jawr fam waaw loolu tamit ñu sama xel xam ñun giwé ñun ñun afu nañu dem bu ci xewi mi amal nak man neex bu neex man dama gisugul man kuma doy amal lima gën metti metti metti moy man dama doxaan midi waaw cinq ñu bàyyante man dama am faru rab. diggante ba du ngeen gisante rek. ante bu ñëwee kër ga. waaw ba ma téye si ngalaab gi ba dàqaale aw appareil rek mu bàyyi. Ah, yow da ngay cof beru. waaw ah, waaw ma baal di dugal ay quelques séquences. waaw man dama mën a képp de ba baal bi nii ba ko nii rek. Hmm? def nii non non baal séquence. ñaaj ñaaj. ma yooyu baaxul. xam nga boo defee plan séquence dóor ko benn yoon rek mu arrêté baaxul. Ah. gars di dee leen ko découper jël sen temps ñu def ko plan par plan. ya na noonu la léegi dama bëgg. Mhm. nga xamné bis bo paré pour tak jabar Omar Bawo sa Omar Bawo la xamna lo nana defal lu ñepp di wax. de nga loolu. du ma kenn kenn du ma. xamna lo yow yaay man may yow. 200000 li ni duma ma tam na ko ci yow. yow. dugal sa yalla la lay bàyyil de. xam naa am ci buntu bi boko rombe ak enveloppe duma may jaan. waye nag ku ko wax ko def la bëgg. ñepp la koy wax.

nu ma. Saye ça va nii rek kay waay. Saye waaw ah leen door. ça va ça va gëj na la gis. waaw maa ngi nii rek tàngaay ça va mais leen door. ak mu mag du baax. Omar Baawo mii. billaahi yàlla yàlla fan jàmm. mais nit kii kii kii kii nga nu ko. dafa baax xam nga xam nga maa ngi woon. Baawo ba ñëw léegi. ñu ngi deux cent mille francs teg ko sama loxo. yaa ko ni ma defal la saf. yaa ko eh sa patron ba. jërëjëf kenn moom. mais garmi. jërëjëf ñaanal ko rek. incha allah ñaanal ko dégg nga. waa Xadisa. saw saw. naka bi. waaw maa ngi sant bu baax. yaa ngi bu baax waaw maa ngi tane bu baax. ah alhamdulilah. yow gëj naa laa gis de. maa ngi fi da ngaa naroon ñoom dem te du ma. maa la raw. ça va yaa ngi noonu lu bees. dara bees. wal. noppi. maa ngi ñëw ci biir. damay waxtaan ak baax na maa ngi lay xaar ci nekk maa ngi ñëw. baaba naka yaram maa ngi sant bu maa ngi tane yaa ngi jël garab yi. waaw maa ngi koy jël bu baax. ah baax na. lenn. bàyyi ñëw sama kër te doo ma bàyyil di ñëw sama kër doo ma grand maa ngi jégalu wax nga dëgg waxoon nga ma ko c'est que cas bi dafa urgent rek looloo tax moo bëtt barrière yi ñëw sam garabam moo jeex mu nekk di lox te su ko naanul da koy indil crise mënuma ma ñëw seet si la. pour nga jëndal ko ko garab bi mu mujjee ñënd sama papa dafa jeex si dafa jeex mais c'est des sachets des sachets jeex na jeex na kay len da ngay naan sama garab papa naanuma ko de non da nga koy mais garab yi mu mais garab bi sama papa rek mënu ko naan garab bi ma mujjee jënd yëpp mais mais c'est des sachets et des sachets laa fa andi sama papa naan lépp rek da ngay garab yi wala da ngay jaay garab yi ba jeex rek ñaata la. quinze mille francs. putain maa ko jëndee. quinze mille. quinze mille francs. une somme aussi maudite que quinze mille francs. yow munoo def quinze mille francs ci sa papa dem jëndi garab. Lendoor moo la jëlee kër ga ñëw andi la fi yow amoo quinze mille francs. attends Lendoor yow ñoo bokk papa sa papa jur noonu man ni ma war a jëndee ay ordonnance sama noonu nga war a jëndee ay ordonnance am mais leen xaalis am na ci dëkk bi da nga war a ñafe que war nga sax ruus déplacé wu ñëw ba fii heure bii naan ma ay jox ma quinze mille francs xam nga xaalis danañ koy amee kuy liggéey. Khadija kontaan naa ci yow bu baax a baax li ngay def ci kër gi de. dara ump ma gis naa lépp man nag xoolatuma la bëtu goro bëtu doom rek laa lay xoole kon nag foo toll day wax amin merci beaucoup baba kontaan naa bu baax a baax ndaxte xam naa ne bët yi ngay xoolee leen doon bët yooyu rek nga may xoole sama doom nga parce que li ngay def nii ci kër gi doom rek moo ko mën a defal baayam kon nag jërëjëf rek laa la wax papa man de suma sañoon saa yoo nga ñaanal ñu ndax takk baba man lendor dama ko bëgg te man xawma kenn ku dul moom loolu rek laa lay ñaan baba Hadiza loolu bu ci am dara looy xalaat foo toll rek deel wax amin te xam ne maa ngi ñaanal amin baba نسى بابا نسى ما عندي كبير في كمان mais il faut que tu arrêtes à la fin C'est ma entreprise c'est ma entreprise. Ça, c'est l'entreprise de ton frère. C'est pas ton entreprise. C'est pas une entreprise familiale. Tu n'as aucun droit dans mon entreprise. Et bon, je te donne des cases. Attends, je peux pas les cases. Quinze mille francs, dama nga jënd garab sama papa paa bi tamit waxoon na ma ma wax la ni la tabaski bi mi ngi ñëw pour xaram bi bañ ko fàtte loolu rek la ma waxoon ñàkk jom cette année jox cent mille francs cent mille francs nga wut cinquante mille woo ci teg ñu dem jëndi xar na nga dem baax na maa ngi dem grand mais may andil añ bi dama xiif waaw kenn bi. wàcc nga. wàcc nga waaw sonn. na nga fële tey neexoon. waaw waaw xaar si kanam. waaw ah, ah, bu fàtte gàtt yeeg yooyu. mu ne ma nga def. si kanam. yaa ngi ñëw kay. I'm da nga run andi my bi finalement suis plus fin quoi on a coupé la patte on est donc vraiment le je sais. non mais tu sais rien wax ne sais tu bëgguma gis sa tu membre famille fini lu fi def. tu rek tu ko def. lu tu na tu sama papa dafa tu day ma jëndal bon sarax 15 tu 15 chaque jour sa papa dafa tu léegi sa papa tu fait après problème tu sais xam nga rek pour se débarrasser de lui bu dafa ñak jom ba pare dëgër bopp et il parle de tout te bëgguma woon sax mu fekk la fi. ba ko fi gisati en tout cas. t'inquiète pas xam naa j'espère que du fi ñëwaat. il n'ose pas. Hmm. mais tu es prête pour demain. oui hmm? oui. ah il faut que nous dem fële. ah oui c'est calé. Aminou ma dem na fa nettoyer na toute la résidence tout à coup xam naa ne foofu nga bëgg yow da nga bëgg xam. waaw j'avais vraiment hâte comme ça comme ñoom xamuñu ko sax buñu. non non il est capable de tout de. Ah,